suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daan naa wax ko xaar yi doon jar danaa ko mu ñëw ci bi nga mën ko dégg loolu mooy am na dégg mais boo ko teg dégg yi biir yu bari loolu du dégg. déedéet waaye dégg dëgg dëgg mooy dégg yàlla am na waa ju nekk turc ci lii lii lii ci lay xar lii ci lay xamle yàlla lii galan ak tama ci lool lay tarbiya nit ne la bant bii bant bu dee la der bii der bu dee la waaye buñ ko tëggee son bu dund moo ciy génn ci loolu lay tarbiyaa jaam bi ci loolu lay tarbiyaa jaam bi ba mu am dégg te dégg kese moo jëf ndax ku dégg dina dem gëstu ji te bu gëstu dana xam ndax yàlla moo ne saa bu ngeen ma ragalee rek ma xamal leen te bu ngeen doxee jëm ci man ma daw jëm ci yéen bu ngeen dawee jëm ci man man naaw te su ma naa dama leen di nekk fa idaa amoon su ma leen bëggee kuntu woo dama lay nekk ku yàlla nekk la wax nekk say bët nekk la ngay gis nekk say nopp nekk la ngay dégg nekk sa gémmiñ nekk la ngay nekk sa jëmm nekk la ngay dama ne kooku moo ko yàlla dootuñu nekk ñaar damma aayaat yi ne aayaat yi foofu lay teewee sa dund ak dund yàlla day nekk lenn. boobaa nag li moom seet doon wax naan dugg saxaar yenn say bagage du ko def moo tax yow man xiyam ku am bopp rek di nga yenn wallahi lazim ku bopp di nga yenn sunu bopp nag moom moo ñu sonal boppam kese moom moo ko sonal ngir boppam boobu nag moom laa wax mu jige fi dañ koy sellal mooy dañ koy ubbi ci yàlla bu ñu ko ubbee ci yàlla benn bàkkaar kese kese mooy bàkkaaru nit nit ndaa wax benn bàkkaar kese am mooy bàkkaar ba maam amoon te aljana muy le péché originel ñun ñëpp moom lañ doon muy benn bàkkaar muy bàkkaaru bokkaale yàlla beneen bàkkaar boo def lépp yàlla li ñu ko sax inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman liman yasha kon ngay wax na la benn bàkkaar kese moom la dul jéggale te loolu kese mooy bàkkaar nag parce que loolu lu tax muy bàkkaar mooy sa bopp nga tooñ ku tooñ sa bopp kan moo lay jéggal yow yaa yàlla sama borom yaa ñëwaat fii weddi ko kan nga tooñ sa bopp mu am nag dañ koy ci yàlla ci innaa fatahnaa laka fatan mubiinan li yaxfira laka laahu maa taqaddama min zanbika wa maa ta'axxar innaa naka ñun yàlla moo kan alif la ak nuun am na lu ñu bëgg a junj innaa naka ñun yàlla alif la ak nuun amul lu ñu bëgg a wax rapport la alif am na jëm wala nuun bu ñu booloowee rek am na lu ñu bëgg a jox naka ñun yàlla. fatax naa dinañ la ubbi laka yow Muhammad jàngkat yi naa ñu ubbeeku Màkka la ban Màkka ban Màkka ban naka yow yow laka yow Muhammad kon Muhammad musoon naa tëju Muhammad kon musoon naa réere yàlla am na bàkkaar ban bàkkaar Muhammad ku nekk xam ne ne mësta njaalo mësta siis lu woon ban bàkkaar lam ko te jàngkat yëpp koo ci waxal ndeysaan yaakaar na ne Muhammad amoon na bàkkaar laa wax alxuraan moo amoon na bàkkaar la ka fata li yaxfira jëm leen jéggale la ka yow Muhammad laaw sa borom maa tax xadama li jiitu woon min dem bi nga ci say bàkkaar ba maa tax xana ak li mujj kon kay amoon na bàkkaar ban bàkkaar benn bàkkaar kese mooy bàkkaaru réere yàlla Sëñ Moussa ne képp ko am xel te amoo wax yu yaa ngi bokkaale yàlla ndax bu ñëwee yàlla yaa ngi jàppee yàlla lu mu ku am xel laa wax te amoo waxuyu mooy ubbi wuñ la ci yàlla yaa ngi jàppee yàlla mun doonul te yàlla du ay calcul de du ay xel mu neex de du ay yaakaar naa de yàlla yàqin la lu wér lu wóor la léegi nag ngir ñu xam ne jaam bi ubbeeku na ci yàlla mais dañuy dem parce que alxuraan la surtout fan yi loolu mooy première aaya bi Si vous ci 10 bi mo lay na ci nan parce que 1 plus neuf mon moo lay jox dix kon da ngay dem neuf planètes composé monde bi la wax mom lañuy défar ci nit ki bu dixième 9 bi neuf planètes bi mooy neuf gën yi nek ci nit nga xamné war benn planète bi ñuy wax géographie ba planète jóg bu ko góor ñàkkee dañ naan dafa dafa yomb bu dee jigéen ñu ne dafa dafa jaasir loolu mooy planète bi ñu naan jóg du fi jóg neuf planètes yooyu bu matee ci yow turu bu ci nekk nga dugal fa ka fa war a dugg paxu bakkan yàllaa ko moom def ko fa paxi nopp ko def ko fa say paxi bët yàllaa ko moom def ko fa sa gémmiñ loolu ñaari aw yi féetee suuf yàllaa ko moom duy fa yàlla ba mu fees neuf planètes yi ma sëkk lan mooy ñëw inna lazina yu bàyyi xoona ka innama yu bàyyi xoona laa ñan daa foofu ay digg képp ku jaayante yow yàlla la jaayanteel fa man nakasa nag képp ku wane ginnaaw fa innamaa yankusu alaa nafsihi foofu la ñuy xoolee ndax nit ki mat na comme premier aay bi lii la ñuy wax dañuy jël un plus neuf mu jox ñu dix dixième aay bi lii la wax ñu xam ne kii ubbeeku na ci yàlla kooku nag ku ko topp yàlla la topp waaye bu fekkee neuf yi la wax. am na benn bu ci manqué seytaane am na ci yow place te day gën a développé nag seytaane fu mu dugg day gën a yaatal fu yàlla dugg day gën a yaatal ba leneen lépp génn yàlla kese des mbaa yàlla génn leneen lépp dugg kese ni ngi amee si soxna boo ku ko xool xool sax nga mer parce que jabar kese la moomoo ko juróo ko jëndoo ko da xëy suba dee mu xëy suba dee bu dem wuti beneen ca kër ga dem wuti beneen jabar suy waxtaan ak yow sax ba ne muudu nga ne kuy muudu fii bu waxati muudu nangam ak nangam kese jabar kese la ay nit ñoo toog seede rek ne diw moo soxla diw jeex na après yàlla noonu la mel ci jaam ñi kenn warul am ci yow place ku duhut yàlla kenn warul am ci yow place ku duhut yàlla moo tax ñun la wa anal masajida lillahi falaa tad'u ma'a llaahi ahadaa naka néegu yàlla yi bu leen fa tudd kenn ku duhut yàlla néegu yàlla boo koy wër romb sa bopp perte nga nit mooy néegu yàlla nit ku xam boppam laa wax nag am na koo xam ne néegu xaj la de boo ko fëggee xaj moo lay am na koo xam ne néegu mbaam la boo fëggee mbaam moo am na koo xam ne néegu leneen a boo fëggee leneen moo lay waaye am na koo xam ne néegu yàlla boo ko fëggee yàlla wuyu am na bu fekkee néegu saa yi la ñu wax am na loo xam ne logique bu baax nga xëy suba tabax sa quatre mur samp say poto génne say sorool teg ne fii mooy néegu yàlla dem ko jur ñu sàcc bu baax pare Macky Sall bi rek mënoo faa sàcc voilà lu toll nii néegu yàlla ñu sàcc keneen la yàlla ne la sama néeg boobu tudd kenn waaj ne la waaw wax na dëgg de moo tax jumaa yi alxuraan kese lañ fa war a jàng ma alxuraan lépp du turu yàlla waaw alam tara kayfa gasal fii lan la firi al fii du ñey ndax ñey mooy yàlla wala baxara mooy lan naas mooy lan insaan mooy lan nam li mooy lan loolu lépp dara du ci yàlla kon ndax alxuraan lépp yàlla la déedéet daa am loo ci xam ne yàlla la am na loo ci xam ne ay taarix la rek nettali Moussa Firawna Muhammad ak noonu ne keneen ak keneen ba mu jeex waaye laa ilaha illallah moom bootee alquran moom bootee yàllaay kese kese amul dara lu ci rax dara raxu ci dara dalee ci ndam bi ba ci asaxeet bi kenn bokku ci kenn wata léeg-léeg góor yàlla bu ñuy waxtaan ci yàlla da ngay yaakaar ne sax dañoo ñàkk teggin fekk déedéet li nga yaakaar teggin du teggin kiiraay la dañ koy dagg ba nga gis yàlla loolu mooy ak sa bërëb dañ koy dagg di ko dagg ba mu set ba nga xam ne yàlla kese fi nekk ñuy ni la sariya nag muuroo la ci kaw waaye nga xam ne yàlla képp fi nekk ba lépp luy leen wan sax ci biti da nga xam lii fan lañ ko jëlee ci biir pays bi ba génn lu fi teg da nga koy xam ba mu leer su boobaa dootoo sikki sàkka ci dara loolu nag sëriñ bu mag la wax moom moo koy def ci nit waxuma këriñ waxuma fëriñ sëriñ laa wax am na këriñ am na fëriñ nag nga leer na koo xam ne këriñ nga da lay ñuulal kurum bul julli bul woor bul asaka bul aj màkka topp ma di ma liggéey boo dee ma dugal àjjana nga topp ko nag boo deewee ñuul kurum kooku këriñ nga am na koo xam ne fëriñ nga da nga mën a julli lool da nga mën a woor loolu asaka aj màkka lépp sa jëmm dina rafet loolu waaye da ngay neex tàll nag waaye ci biir dara yàlla nekk kooku fëriñ la sëriñ nag mooy sër iñ baatu iñ mooy fiir ñaw ci olof ñaw sa ruux gi lay booleeg yàlla ñaw ba mu dëgër loolu mooy sëriñ kooku la ñuy wax sëriñ bu ma sëpp sëriñ kooku la du sant du askan du kër du sikkim bu rafet du kurus gu gudd du kanam gu leer du yooyu Sénégal dem nañ ba léegi nga gis koo sëriñ la sax day jël tous ngol sax def ci bëri du xulli bëri pour boo xoolee ragal gis nañ ko xam nañ bu baax gis koo xam ne day dem ba gommage lay jënd sax gommee kanam bi moom leer boo ko xoolee yii sa waay sëñ bi kanam bi day tàkk sa waay kanam googu suuf see koy mujjee sax yee koy lekk wala kon ndax loolu mooy sëriñ déedéet du kooku de yam moo anil xal bi raynan xabiy dali saw ma woon mu xaasili an saw bi nagaasaati nee na sëriñ bu mat sëriñ sa ruuxu ji lay raxas ba mu set wet comme yow mu jël yëre bu weex bu takk sobe nga jox ko jigéen ne ko sobe su feeñ fii la ne ni muy xamee ne fii la ne mu fóot ko kooku mooy sëriñ bu ko raxasee ba nga set wecc da ngay nekk sëriñ yow ulaayka al qawm laa yasqa jalisuhum yasibuuna muridiina sa'aadat yow sa bopp yow da ngay bokk ci xaw muy far laa yasqa jalisuhum kenn toogal yow di texee di waa ñama toogoon naa seen saaliw de man waxuma la toog boobu de ma ne waxuma la toog boobu am na ñoo xam ne gisoon nañu yonent bi nii te ña nga sawara am na ñoo xam ne ñaan ñoo ko gént yonent bi dem àjjana am na ñu ko gis nii te ña nga sawara kon gént yonent bi dalaa yóbbu fenn Sénégal dafa loolu nga dégg damaa gént diw géntal ku la neex gént kese la du dara am na ñoo xam ne ñoo gisoon yonent bi nii toog ak moom te ña nga sawara kon ndax gént diw day tax nga dem fenn déedéet boo ci génnee nag ca la texe door laa ñeel tuuba li abdin muridin saadixin lahumoo bi xidmatin aw bi hubbin awadiyaat sëriñ su bari jamono ji loolu la ñuy naxee taalibe ñu bëree bëri loolu lañ def sax seen bi portable yi fàtt yaakaar ne moom comme maa ngi liggéey sëñ bi rek kër ci kër su ma de doo dem fenn sëñ bi moomu laa jëloon na leer sëñ bi. moomul àjjana de déedéet tuubaa gii texe lii ñeel xam din jaam la wax kon da ngay nekk jaamu yàlla ba noppi tuubaa gii texe lii ñeel xam din jaam da nekk jaamu yàlla ba noppi kan mooy jaamu yàlla yaa nafsu mudma inna yow borom bakkan bu dal bi irjahi ila rabbiki maasu jigéen la irjahi dellu ci sa borom kon yow mi war a dellu ci yàlla xamal ne boo delloogul ci yàlla ci nga xam jigéen nga taxaw du sama wax de alxuraan la lu tax waxul irji'i ilaa rabbika ilaa rabbiki la wax maasu jigéen moo tax jigéen mooy jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla moo tax ñu la taalibe sëriñ sëy la daa mel ni borom kër ak soxnaam ku góor ki daa war a mat góor warul yomb ku jigéen ko war na jaasir waaye bari na fi ay sëriñ yoo xam ne noonu lañ mel duñ am mukk doom ci yàlla bari na ay taalibe yoo xam ne duñ jur doom mukk ci yàlla parce que dañoo jaas nit ci dafa yow duñ am dara sëy boobu dara du fa jub déedéet dara du fa jub saa bu ko noppee moom laay wax bu la delloo nag ci yàlla ba nga dellu nag su boobaa ngay door a nekk nag jaamu yàlla irjahi ila rabbiki raadiyatan mardiyyatan fadxuli fi ibaadi kon ndax da ngay xëy suba rek ne jaamu yàlla la déedéet da ngay dellu ci yàlla yàlla takkal la garaat ne la sama jaam nga fadxuli fi ibaadi da ngay door a dugg kon ngay nekk jaamu yàlla benn barab bu tëj la da koy dugg fadxuli ci ngay a dugg fi samay jaam kon barab bu tëj la da koy foofu nag boo duggee. moom lañu ñu alxuraan di wax ne inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan sama jaam yi kenn mënu si ñoom dara gis tey jaamu yàlla boo xam ne sa waay moo ngi yëgi ne yow wala balla de buy génn këram bu fàttee bidéelu saafara bi sax ñemewul génn te nee na jaamu yàlla la de yàlla rek laa gëm man fu dul yàlla ragalu ko da nga koy dégg man yàlla dong laa ragal waaw fu dul yàlla te bu yëkkatee jërë bi nga ci ban yàlla ban yàlla ban ban yàlla ngay wax ban yàlla rek nga wóolu dëgg la te moom moo la doon aar bi nga nekkee màndiw jëlee la ci màndiw dugal la sa biiru ndey di la aar ba mën naa continuer di la aar bi nga nekkee joxantal màndiw amaana sa waajur yàgg naa say te génnoo mu téye la ne la doo génn tant que waxtu wi jotul ba nga génn amaana sa ndey yàgg naa am muy yàqu mu téye la ba yàquwul kooku mënu la aar ba mën na ko waaye ndax wóolu gi am na ma ne ndax wóolu gi am na bu yëkkatee ndigal rek nga xam ne wóoluwut yàlla billaahi wallaahi parce que li tax muusoo yeewuwoo mooy da ngay gis tey Sénégal sëriñ boo xam ne day jaay ay téere ne la téere bii de téere bayre la ku ko takk loo jaay mu jar boo jaayoo jar te moom li muy jaay mënta jar yow woo yow miy jaay téere bi naan ma lii ku ko takk loo jaay mu jar boo jaayoo jar boo jaayee mu jar te moom miy jaay mënta jar muso deru gaynde la boo ko takkee nangam ak nangam gaynde gi moom bu amoon kàttan doo jot ci deram parce que dafa dee moo tax moo jot ci der bi ku ko rey deru muus muus bi dafa dee moo tax nga jot ci der bi ngay jënd kooba wala leneen ñoom ñëpp dañoo dee moo tax nga jot ci ñoom waaye ku si doon dund doo jot ci loolu kan moo leen rey loolu mooy jaamu yàlla connexion bi ñu soxla sa diggante ak sa borom ba boo kàbbaree boo kàbbarul moom ngay gis boo su yootee moom ngay gis boo su yootul moom ngay gis boo wooree da nga koy gis boo woorul da koy gis loolu lañ soxla ci jàmm bi kooku nag soxlawul dugg ci néeg di làqatu def dara déedéet parce que xamné ne ki ànd ak mom da ànd ak mom wo ma ay ayna ma kuntum ma ngi nek ak yéen fépp fo leen nek waji ji di xool barab mu ko da nga sori waxuma la fi de fo nek yow wo ma ay ayna ma kuntum fo leen nek yow fo nekk ngay xol fi fo yàlla né na man ma la gëna a jege sax sa jëmm ci fa annahu aqrabu ilayhi min qabli warid man yàlla maa la gëna a jege sa mu xol te lér na ne bu mu xol bu buñ ko daggee nga dé kon yàlla lim la bëgg wax moy mo la gëna a jege sax far sa bopp boo déggee dëgg mooy nekkoo far léegi da ngaa bëgg a nekk nag sama nangam sama sangam sama lii sama laa buñ nee laa ilaha illallah nga mer parce que laa ilaha illallah day dagg sëriñ day dagg yonent day dagg xutbu day dagg ñëpp kenn kese samp mooy yàlla léegi nag yow mi bëggoon dara mu ne innahum innahum isa xiila lahum laa ilaha illa allah yastakbiruuna innahum naka ñoom kaanu nekk nañ isa xiila boo leen waxee laa ilaha illa dara dañuy rëy parce que ñoom dañoo bëgg nekk laa ilaha illa dala fiy jëlee doo fi nekk yàllaa fi nekk amoo dara yàlla am xamoo dara yàlla xam doo dara yàllaay dara loolu mooy jaamu yàlla su boobaa nag boo amee liggéey da xam ne yàlla la ko boo ñàkkee liggéey da nga xam ne yàlla la ko xañ boo amee soxna yàlla la ko jox boo ñàkkee soxna yàlla la ko xañ boo amee doom moo la ko jox boo ko ñàkkee moo la ko xañ boobaa nag loolu mooy noppalu loolu mooy dégg-dégg liberté moo nekk noonu loolu nag gis nga boo ci naanee ba màndi laa wax soxlaatoo naan leneen boo ci tuxee ba màndi soxlaatoo tux leneen boo ci ñamee lekk ji ba suur soxlaatoo lekk leneen loolu lañ naan la màndi baax mandi leer góor su mandee day yëngu ma ne dëgg la waaye mandi bool mandi sàngara jigéen bu mandee day lëlu na leer gis nga boo mandee baax mandi leer soxla woo leneen mandi baax mandi leer góor su mandee day yëngu waaye mandi bool mandi sàngara jigéen su mandee day lëlu